daaray isbu tarxiya ñëw nañ ci dimanche ji ziyaare si xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir ziyaar boo xamante ni dañoo ñëw ngir jébbal ko première tranche addiya ji nga xam ne dafa jëm ci liggéeyu université bu Touba te daaray isbu tarxiya fas yéene ko ànd ak sëriñ bi ziyaar boo xam ne nag mboolem jëwriñ daara yi nga xam ne ñoo nekk ci au niveau national ak international muy cellule Hizbut Tarqiyyah yi ñoom ñëpp teew nañ ànd ko jëriñ daara ji di Serigne atu Diagne ñu ñëw ci résidence Khadim Rasoul ànd ceeg organisation bu am solo yëkkati fa ay xasida durus njàng lépp loo xamante ni jëm na ci ziar ñu amal ko fa ay waxtaan ngir xaar ki nga xam ne moom moo di sëriñ bi sëriñ bi nag ginnaaw bi mu agsee sëriñ Atou Diagne jébbal na ko lu toll ci ñaar téeméeri million ci suñu koppar mu nekk àddiya joo xam ne première tranche bi la rek ñoom ñu jox ko sëriñ bi fas yéene ànd ak moom lépp loo xam ne dafa jëm ci liggéey bu université bu Touba. sañ nañoo wax ne liggéeyam bii am na ci ak gàttandu boo xam ne lislaam bépp na ñëpp mel ni ñu nekk ci feet ndax incha allah sunu borom dina ko defal ndam ñoo ngi tàmbali nag jataay bi di ko duggee xamal ko ne ko man damay ubbi jataay bi rek waaye sëriñ aatu bi nga xam ne tey jii yàlla suñu borom dogal na. mu jiite liggéey bi di boroom aal joo xamante ne ak cofeelam ci Serigne Touba moo ni toll moo tax mu bind li nga xam ne mooy kàddu yi jëm ci yow dinañ ko jox incha allah Serigne Sidi Omar Mbakke mi nga xam ne mooy doom ci sëñ Modou Mbakke gelogel di kenn ci ñun di bokk ci imam yi nekk ci daara ji di taxawu njàngale mi incha allah dina ko jàng ci arab tënk ko waaye man damay ubbee rek. tudd la ne la incha allah liy tax jataay bi am mooy sëñ aatu mii dina la jébbal li nga xam ne mooy liggéey bi mu doon taxaw ci Hizbut Tarqiyyah ngir muy yoon wi jëkk ci ñu wuy si ci liggéey bu mag bi nga woote mooy université bi xaaj bu jëkk la nag ndax ñun sañu ñu wax ne lii moo ci sunu sas li ciy sa sas mooy sunu sas ñun ñu doon armee boo xam ne dañuy sës ci yow du ñu nopp lu mukk ndare du liggéey bi dafa mat te noppalu sax du mën a am ndax xam na ne dinga ci sof yeneen yu dul jeex di ko defal sëñ Tuubaa te di nga ko àggale ci barkeem incha allah Mbàkke nag si atum yi ñi mu ko àndal fii ci wetu Saalum jëwriñ ñi la jëwriñ ñi daara yi ñoo toog nii ak ñi ñu àndal di ñoo xam ne dinaa wax ne lott naa sax ci kañ leen te it day faral di wax ne santante suñu biir nañ bàyyi ba bis bu mujj ba ñu am ko ci sëñ Touba waaye ñu soññante lañ sax def waaye ay jàmbaar la ji yoo xam ne daara yuñ jiite benn bu wuteeg moroomam aw doxalin amul benn bu ci ne ni ko Hizbut Tarqiyyah nosee wenn nosin la góor ñi ak jigéen ñi ak mag ñi ak ndaw ñi fu ci ne dañ leen utal ay barab yoo xam ne lañu fay def ci liggéey ak lañ fay jàngale daf fay tàggat kenn ku ci ne ba àdduna lu mu yëngu-yëngu-yëngu doo tal dara lu liggéey Sëñ Tuubaa lii mooy liggéey Hizbut Tarqiyyah ci lay def ci daara yëpp xam nga keroog bisu Uhud li tax jullit ñi jàkkaarloo gannaaw naa naafeq yi dañoo ñëw Madinatul Munawwara dugg ci lislaam ngir mucc ngir bëgg jàmm sunu borom déclenché Uhud bi mu ko déclenché ñu am victoire wala ñu am échec taxutoon ñoom dara ñoru ko ci ja wan wan yonent bi gaa yi mu àndal ñan la mille personnes képp la am juróom-ñaar téeméeri li mu ndax ñetti téeméeri yi dañoo ñëw ba ci terrain xare bi ñu war ko ñoom ñëpp mu jël ñeent fukk ñoo xam daleen wax ni ak lu mën a am lu yàgg-yàgg lu dul man man mii wax leen leen taxaw leen fi te bu leen fi ma ma dellusiwaat leen ko wax nii la ñun lii lañ doon soññante kon kii ñun la am ñun ñii la am te li mu bëgg mën nañ ko ndax bu ñu amee rek ñu doole ci lépp yow ma uneen la te ki ñu taxawaloon uneen mooy kan gaa yëpp a daw ñëpp a daw il faut lu ne da koy wax na mu tudd dañoo wëlbatiku mu wax si naa naabaas wooteel mu woote bi mu wootee ñëpp génnaat ñoo fekk fu mu taxaw sunu borom daal di wàcce malaayika yi def ay xar baax ñu gañ xare bi waaye waaye loolu loolu wane na ko au début te doon ab xare lu doy sëkk si naa si naa jibril da ko guufaan wax ko ni ko doo dem tey kat mu ànd ak moom gileem gi ñu yës xam loolu ñu naan la bu ñuy signé yow contrat tey dañ naan Mouhamed Ibn Abdoulaye ci lañ la xamal mu nangu ko kooku ku mu yar nga dem xare Badar même chose foo Xaybar loo tudd loo même chose lépp lépp moom ki mu àndal la koy def kii nag dafa ànd kooku ñun amuñu xam amuñu xel ñu loolu li nga bëgg rek programme yi dox ci dëkk bi yëpp ku bëgg xam suñu programme bàyyi la nga jàpp te ñëw ci ñun loolu li ci des li ci des lu ñuy lu ñuy yëngal la ay njàngum tubaab la ñii fi ne kenn ku leen ci man amu ci waaye dañ ci amut soxla li ñu am soxla mooy sëñ Bàmb li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaafal minna li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaafal minna